dama dégg seeni problème ma jooytu ko ci assemblée nationale ministre bi ci boppam moo ma wax ci làmmiñam ci assemblée nationale ne ma fexeel ma jot dossier yi fexeel ma daja ak ñoom ñëpp di ko dégg dootuma wax mukk te tudduma immigré yi loolu maa leen ko wax mooy ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ak ñi ko amul mais ñi am jafe-jafe nañ gaaw lijjanti seen problème mais ci biir lijjanti boobu nañ réglé waale ñi nga xam ne amaguñ jafe-jafe te ñu ngi ñu pare prévoir ko parce que lu tax mooy ñooñu dañoo war a ñibbi si Sénégal pour taxawu seenu njaboot damay wax gars yi ne ñun Touba jafe-jafe yi ñu am te seetlu wuñ ko mooy muur kat kër quartier boo ci dem Moodu mor yi yëpp fa nekkoon nga xam ne ñoo doon doxal lu bari te faama rek léegi wax ko léegi Ousseynou wax ko lu bari amatul mënatuñ ko boo gisee économie Sénégal Moodu Moor yi dañ ci doon participer bi ñu amee jafe-jafe dafay feeñ il faut ñu waxante tey boo seetee ñi doon fi ñu daan envoyé transfert l'argent yépp daanu nañ lu tax ñu daanu mooy moodu moodi ñoo daan envoyé amatul. boo dikkee fii ci magasin yi oto yi ñu ngi ñaan président de la république oto yi ñu gën leen ko yombal ba nga xam ne yóbbu gi ñu ko yóbbu Mauritanie mbaa Gàmbi di ko defar di ko indiwaat Sénégal na arrêté. ñi ngi ñaan président de la mu gën leen taxawu foofu ñi ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñun immigré yi nga xam ne ñoo nekk fii am ay jafe-jafe di ñii di dem ak a ñëw ñun ñoo war a am suñuy député diaspora yoo xam ne nii ñoo koy tànnal suñu bopp ñu di ñu toogal assemblée nationale di ñu wax la ci fa xew parce que man li ma ci gën a am gàcce mooy euh, en tant que ministre des affaires étrangères keroog bi ko Sadaga question bi mu ne mustaxab loolu yi nga xam ne nii maanaam moo fa nekkoon bu njëkk kon mooy li ñuy wax rek fi mu ne dossier yi ci bëree bari day naax saay rek parce que wax dong lañ fiy nekk di def mais góoma ne dara dana ci am ñun nag wax dëgg yàlla décidé nañ ñun ñi nga xam ne ni ñooy AMB man de lépp lu ma ci man bu soobee yàlla ak yonent bi lépp lu luñ ci mën a dox ba dem seeti ministre bi wax ak moom jox ko dossier yëpp incha allahu rabbi danañ ko def mais li nga xam ne moom la ñuy wax daal dañoo bëgg euh, Ousseynou Gueye AMB na jàppale immigré yi nga xam ne am nañ seen i jafe-jafe na jàppale ñi nga xam ne ni am nañ seen i problème seen alal nekk ci bitim réew nañ leen jàppale ndax euh, daf ci am loo xam ne nii euh, dama gis euh, même kii bi kii bi président de la république doon def jam ñaajo parce que le problème mooy léeg-léeg ñu indil ñu benn certaine gasama daan moo jiite association immigré yi nga xam ne ni ñoo nekk ci bitim réew mi yëpp te am ñun am na ci asso am na ci ñoo xëy xamuñ leen da ngay jógee wala nga nekk Libi wala nga nekk euh, euh, Mali def fa 3 mois 6 mois dikk na maa jiite immigré yan immigré nga jiite. yan immigré association yu bare baree ngi fii kenn ku nekk yor sa récépissé amu ci 10 personne kenn amu ci dix personnes maanaam nañu bàyyi yi nga xam ne ni mooy nax immigré yi te jàppale leen parce que fii ñi ma fa suñu ñu sonn fi nekk ñoo xam ne nii diñ leen war a dimbale jàppale leen këyit yi ñu la jox sëñ Ousseynou nanga ci teg sa bakkan def ci lépp loo man loo ci mënul man boo ma ko joxee danaa dem Dakar incha allah lijjanti ko te mën naa ko yóbbu ci ministre bi teg ko ci loxoom ñun xam naa ne wax ji du bari parce que timis gaa ngi bëgg a jot li ma leen di xamal mooy affaire politique ak yooyu yëpp indiwuñu fi li ñu fi indi mooy problème mu immigration seen coono bi ngeen nekkee moo tax ñu bëgg ñëw di leen jàpp jërë ngeen jëf